Eh, sunu xalaat yëpp eh, ñu ngi ci boobu ba léegi yàgg na lool eh, te liñ ciy wax yëpp dañoo bëggoon ñun ñi nga xam ne ñun ñoo moom tali wi ñu mobiliser wax jëf pour ñu mën ñu defar ñu suñu tali boobu ba léegi nag ñu ngi ci problème mu tali jaga jagañaaw Sandiara liñ ci gënoon a bëgg nag mooy président Macky Sall jàppale defaruñu suñu yoon bi yeeg jege na dayoo parce que oto yaa ngi yàqu xam nga ne ndox mi oto bu ci dugg doo yëg ak moteur sa lépp day yàqu clients yi it sonn nañu waa Ndiaganiao population Ndiaganiao sonn nañu vraiment ci diggante Sandiara ñaw treize kilomètres vraiment eh, eh, jege na dayoo fi mu ne diñ ñoo déggoon dégg bi sax yàgg na parce que monsieur le président Macky Sall mi nga xam ne mooy eh, njiitu Sénégal fi mu ne ñëw na ñaw xam na fan mooy Ndiaganiao xam na population bu nekk ci Ndiaganiao département yaakaar naa ci ci ci li ma foog e, e, commune Ndiaganiao e, bi ko ëpp yaakaar naa bu bu bu bu matee ñaari ci ci lay mën a yem liñ liñ ñu diggoon yëpp gisuñ ci dara gisuñ ci dara tali bi it ñun yàgg nañ ci di ko jooytu def nañ ci lépp def nañ ci ñaxtu def nañ ci lépp mais vraiment boobu ba léegi mille 2018 la ñu waxoon ci la ñuy defar tali mais ba léegi tali bi gis nga ñu mel. na na nax i mbay la naxe mbaay la parce que eh, eh, weer nangam dinaa ñëw defaral sa tali weer nangam dinaa ñëw sa defaral sa tali te vraiment boobu ba léegi 2018 2019 ba 2020 2020 presque ma ngi bëgg a dem. mètre yu mu fii la dëkk tout près caajaay njagaña benn la matul 10 kilomètres boo ko jaaree fii tey dem caajaay matul 10 kilomètres. li ñu yaakaaroon nag dañ koo gisul met yum yaakaar no yaakaaroon nañu mu defal ñu lépp loo xam ne lu ñuy jooytuti ci nguur gi waaye gisuñ ci dara vraiment gisuñ ci dara. Euh, parce que métit bi ñu ñëkk a bokk population Ndiaganiao yëpp a yëg métit bi euh, moo taxit tey ñu ànd ñun ñëpp ak chauffeur yi euh, avant que jëy bi fa am daaw di fi amaat. mu am kambu bo xamne bo ci duggé dina jëgë 1 mètre ba mu upp ko kambu bobu lañ mobiliser tay pour sak ko bo liñ fi def déjà fofu dafa fess ak ndox euh ñu pompe ndox ñu bëgg pompe euh, ndox mi ngacc ko euh def ci ciment ak grava vraiment ba euh, tali bi xawa praticable surtout à ce niveau là parce que li mom euh dara lañ ci mënul euh, c'est juste un plan hors sec une opération coup de poing pour camp yu gën a ñaari camp régler en attendant peut-être euh, euh, que une action aussi. Euh, tout à fait il faut à chaque occasion dañ koy fàttali parce que yoon bi comme ni ma ko waxee bind nañ bind nañ ministère des transports depuis Abdoulaye Daouda Diallo ba ci Omar Youm bi président de la République ci boppam bi muy inauguré AIBD Mour, moom moo annoncé en 2019 yoonu Sandiara Ndiagañaaw ak Ngéeñeen Caajaay dinañ ko defar ñu jàppoon na nag euh, président bu waxee c'est comme un décret le ministre ñu ñu ne deete waaye un ministre de la république yore euh, les transports terrestres nekk doomu gox bi bi ma koy woo di ko fële dem na ah Gana xanaa yow de dafa mel ni yow sa sa sa ñaan nangu na pour te dire que yàlla def na ñu teg ko à la à la tête de ce ministère la mu digal ñu euh, euh, mois de juin bi parce que mooy tax chauffeur ba ne weer ba ne ñu diggaate mais dernière la dernière promesse c'était euh, au mois de juin on nous a dit aussi projet bi ministère de finance moo ci des mais nun mënuñu xaar loolu parce que déjà daaw am na ben accident boo xam ne boo demee ba ci kanam am na oto bu am xale bu góor bu ci bu ci dee pour bañ nag loolu amaat pour que l'irréparable ne se reproduise moo tax ñu décidé tey ànd population yi sakk kamb bi nga xam vraiment de xóot euh, oto yi daal benn mënatul daal saa saa yu tawee rek benn oto bu ndaw du du dem. les populations ont donné toujours l'ultimatum parce que bu ñu defee lii toog ah comme niñ koy wax on passe à la vitesse supérieure mais nag du ñu parce que aussi euh, suñuy doom ñi di dee moo tax lii def. Euh, on n'a pas les moyens c'est des moyens qu'on a déployés parce que on a on a mobilisé une un camion ben.